comportement. comportement oui, mais euh, Lamine comportement d' accord ak yow mais le président de la république moom lañu ñu fal pour mu régler ces problèmes la d' te kenn mënul wax ne Macky Sall xamul réew mi. lim la wax lim la la wax léegi. Mhm. xam nga nee ci biir université bi. waaw ñi fay jàngale ñoo dem créer seen affaire. def fa master prof privatisé ko moom laa wax loolu loo ci man mais non c'est non attends waaw kay état bi am fu ma jëm alors que état bi def fu ma jëm fu ma jëm mooy man exemple mooy moo tax ma ne la le mot repenser beaucoup de choses bu ñu réglementer beaucoup de secteurs des comportements pareils du am c'est la même chose ñi nga xam ne ñoo war opérer kii exercer ci hôpitaux yi mhm. ñoo dem ubbi seen ay privé di fa yóbbu seen ay clients di leen externaliser foofu di leen fa yóbbu mhm. xam lu moo tax ma ne dafa laaj beneen système de réglementation c'est pour même dans l'éducation mhm. ñiy jàngale ci école yi li bàyyi cours li ñu ëpp dem seen école privée yi moo ëpp ñoom école privée yi sax ñoo ko moomaat alors maintenant damay revenir quelques tuuti deux points li mu wax ci sur le la Mauritanie xam nga par exemple dafa nekk un marché vierge man dama daan ne ne benn euh, benn store muy jaay fromage di jaay fruit di jaay garab lépp ci benn kii ci benn espace mhm. maintenant dañu mu nekk ils ont réformé leur système euh, avec les nouvelles agences de réglementation pharmaceutique ils ont réformé mais ils sont terrain vierge maintenant boo exercer ba am sa diplôme boo demee dëkk boo dem tu t'inscris dans l'ordre bu ñu la accepté nga ñëw dugg tu t'exerces donc mën nañ dem foofu parce que loolu mu amu foon avant yow conseiller Diouf Sarr nga. oui non dama avant. mais mais mais, mais Lamine. je donne l'exemple sur ça. y' plusieurs jeunes pharmaciens sénégalais. yoo plusieurs jeunes médecins man plusieurs jeunes médecins mënuñu am sax exilés am na ay médecins. am na ay avocats may ma ñëw am na ay médecins am na ay avocats ak ay yeneen yu exilé wu dans d'autres domaines. Mhm. ce que je veux dire da nga ñuy citer un point pour ba ma lay foofu ni que. Mhm. nekkul ne bi moom la parce que pharmacien boo koy def te yaa dëkk bi nga xam ne war nga mën a nga dem nga dem tout simplement ça loolu c'est exemple que je vous suis pour dire que Sénégal en avance sur beaucoup de choses parce que ici ici ça c'est réglementé depuis longtemps. Mhm. bay pharmacien pour nga gis officine y a des tout un réglementation à faire. amul ci dëkk boobu ba ngay wax de. ah ma ko ba ci clinique bi ngay naan dañuy dem ubbi seen euh, clinique à côté c'est autorisé par le ministère. c'est ce que je dis parce que man man mënu xëy suba rek. c'est pourquoi je dis exactement c'est pourquoi je dis. da nga ne ministère moo moo tax ma d'accord yow sur repenser. moo tax ma ne il faut loo xam kay xam nga ah, ko mais maintenant. moom mooy conseiller moom mooy conseiller technique Diouf Sarr non man mais war na xam xam na li xam na. bon président de la République xam na ne fii ci Sénégal. le temps ay médecins ñi ngi xëy war dem liggéey dans le public comme ni nga ko waxee sànq bàyyi ko fa dem di gérer Sénégal président de la République xam na ne ci suñu dëkk yii ci Sénégal gii am na hôpital yoo xam ne boo fa demee dañ naan la médecin bi ñëw fi ab Ramatoulaye Sarr jaar ca ginnaaw ne la médecin bàyyi këram soo bëggee nga dem. fekk ko fa mu jox jox ko nangam ak nangam. mais loolu président le moo tax ma ne xam-xam li nga mën a def mettre c'est des mettre des filtres pour ñu repenser des systèmes pour que ñu régulariser ko loolu laa wax il faut des réformes dans beaucoup de choses maintenant en tant que li ñuy wax conseil technique mm-hmm. man là où je suis mm-hmm. ña may toogal samay naataangoo xam nañ ko c'est pas parce que j'ai donné un exemple sur quelque chose pour apporter un éclaircissement ça c'est vraiment de taille mm-hmm. que muy toog monsieur Liroune nii des choses les dérisions là moi c'est des choses qui ne me parlent pas <laughs> Euh, président nee moom nee président Macky Sall moo ne woon il faut refor il faut mu mu dem ci priorité yi mhm. priorité par exemple la Covid ouais. mais n'oublions pas que ci Covid bi on a investi il a mis mille milliards ci Covid bi pas sur la santé non Covid ngay wax rek. 1000 milliards di jëpp ceeb lañ ko jëndee di jëpp ceeb lañ ko jëndee. 60 milliards ceeb. pas sur la santé c' est important de préciser. non que Covid 1000 bien c' une bonne précision. non si man je ma globalisé. mais santé la ñuy waxtaanee la. non mais mais pour bu mu waxee Covid tax la cadre woo ko ci loolu. non dama ni ba Covid Covid nga ñëw mais non. déggoo ko dama ni ba Covid bi duggee mm-hmm. président dafa ni. Mm-hmm. revoir l'ordre des priorités investir sur le capital humain. oui xanaa doo mën investir sur le capital humain mooy jënd nit ki ceeb. jënd ceeb ak diw. allez-y allez-y Lamine. maintenant mm-hmm. on avait injecté mille milliards. sur des secteurs sur la santé sur l'alimentation en tout on a appuyé les peuples par rapport à parce qu'il une crise mondiale mm-hmm. et d'ailleurs le croissance de beaucoup de pays avait chuté donc ça il fallait des des des des des des de ripostes yoo xamante ne ñooñu mën a aider les populations à ce que ñu soutenir cette population résilience. Mm-hmm. muy benn ñaare bi ci biir Covid bi s'il s'agit de aujourd'hui du ministre bu muy wax les compétences du ministre sont avérées mondialement reconnues il n'a été le Sénégal a été numéro numéro deux mondial sur du Covid numéro en Afrique ña ko doon def ñun fekk ñu leen seen dëkk ñu toog ñu fay leen. def leen def leen ko bokk na ci waaye du ay. xarañte a la a la chance. gestion Covid bi gestion ministère la ak yooyu waxi waxi caaxaan rek ñaan la rek mais. wax dëgg yàlla nekkoon. il faut me laisser y il faut me laisser mon <laughs> uh-huh. que man bu fekkee ba intervenir après trois six quatre intervenants ou cinq bu nga ñëw nga may entrecoupé ça on n'aurait pas alors là je suis venu man je livre des trucs yoo xamante wóor na li mën nga ci teg baaraam loolu laay wax alors ce que je veux dire Sénégal a été numéro deux mondial numéro un en Afrique sur la gestion du Covid oui. qu'on des filtres et des régulateurs sociaux waxatuñ ko ça ñoom ils nous ont beaucoup localement mais c'est le, le concours de toutes ces personnes là qui ont fait les les les consécrations du Sénégal au niveau national euh, et, mm-hmm. de choses génnewu ma ci ma sàmm gënu ma ci dem ñooñu nekk un premier plan de la riposte benn bi ñu jógee ci euh, comment dire encore sur le l' inspecteur bi ma wax sànq. Mm-hmm. il a raison de le dire il y choses xam nga des fois il y choses ça manque de synchronisation ou de synergie pour ñu mën a apporter les solutions qu'il faut à la population tu sais les inspecteurs là yàlla je t'ai dit amul. Mm-hmm. waxuma la amul en tant qu'organe am na. mais je veux dire sur place au-delà de se lever jékki-jékki def tournée moi j'aurais suggéré que dans chaque poste de santé mu am un truc bu fa am boo xam ne le major kii là-bas dañ koy fekk foofu mu nekk organe boo xam ne il est bienveillant nekk ci biir bien entendu avec tous ces jeunes qui sortent nga xam ne génn les sortants dañ koy dem di def parce que n'oublions pas que les sages d'État dans leur dans leur formation en troisième année il y a la y a y a a les modules de gestion mën nañ ko natt ci doomu aadama c'est aujourd'hui ki ngay jël nga nommé ko ministre wala nga jël nga nommé ko nen c'est la base c'est la supposition de ses de la compétence émanant de de son CV supposition la rek mais que mën na ko wala mënu ko il faut le mettre à l'épreuve pour nga mën ko xam alors ñooñu bu ñu ko mënee pare ba pare mën ko bu ñu amee benn laxisme par rapport à ça aujourd'hui au niveau du ministère je vous dis boo duggee ministère boo connecté sa internet mënatoo am benn vidéo tu pour que nit ñi les inciter les gens à alors dans ces ministère oui mm-hmm. dans ces dans dans dans dans dans ces postes de santé aujourd'hui on a parlé de caméras de surveillance la proposition que je vais faire en coordination c'est-à-dire il faut des organes de contrôle soit c'est les caméras de surveillance c'est une permanence qui perd assez souvent mais avec des gens assez autonomes qui n'entrent pas dans des compromissions parce que ils sont là en train de servir un État en train de servir des vies humaines là c'est la responsabilité tout un chacun qui est alors mais loolu mënoo ko natt ci doomu aadama ki nga jël tey wóolu ko ba dox ko mu jox poste bu rëy nga dafa détourné xaalis bu détourné war xamoon nga day détourné xamuloo ko. alors je termine pour dire que. Mm-hmm. euh, sur la gestion de la Covid xaalis Covid bi pour une première fois dans l'histoire du Sénégal moo tax ma lay waxaat. c'est pas parce que c'est le ministre mais je dis gàcce ngalaam au ministre de la santé bi fa nekkoon Abdoulaye la ko mm-hmm. tout le monde a suivi ici que toutes les donations ont transité au directement au ministère la santé mu xëy oote ne c'est de l'argent public yoolu yóbbu ko trésor public au ministère de l'économie finance yóbbu ko fa ñëpp gis nañ loolu am na wala am mhm. tout le monde cet acte là alors mooy wan ne amuñu ci gestion personnelle bu ci nit di ñëw di détourner wala nangam je reprécise que mhm. par rapport à ce qu'il a dit je peux rejoindre Pape Matar sur ça parce que les politiques quand on est politique c'est pas dañu politique rek qu'on est fautif fautif les politiques Abdoulaye Diouf Sarr a gagné Yoff sans être au ministère de la santé il était directeur du COUD. après ñu ñu teralal ko ministère. non non ban ministère. santé il a non après COUD il est parti au tourisme. tourisme la jógee dem collectivité locale. bi mu nekkee santé la perte Yoff où sont les donc amul. mooy non non non non non je veux ba muy ñëw buntu Walfadjri rek y avait pas mais bien sûr bien sûr j'étais venu avec lui. Ah, j'étais venu avec lui. <laughs> bu ñuy ñëw bu ñuy def tournée en politique. quand la politique c'est la politique. oui nekk avec l'argent du contribuable ah, sénégalais. non pas l'argent du contribuable man en tout cas je fais. fan la jëlee autant de milliards. kan ci Diouf Sarr. milliards. ah oto de la. mais c'est des oto yooyu ay milliards la oto yooyu bay dawal. ay oto yooyu man man li may dawal maa ko liggéeyal sama bopp. non mais moom da nga ko liggéeyal. ah non ah, non non non dama ne ñun bu ñuy dem nii def voie de je dis parce que voiture de service boo ko am ñi nga àndal ñi liggéey ñu invité leen bu ñuy neexee dañuy ñëw taxaw gaare seen oto. bloqué circulation bloqué tali bi. non non non non bloqué tali moom dama ne bés bu yàlla sàkk nga gis nit ku taxaw. voiture de ma ñëw xaar ma ñëw. c'est ça venir je parle pas de l'administration je administration politique je parle pas de ah, l'administration. ah d'accord bés bu yàlla sàkk nga génn tali bi fekk nit ku def mariage xëy baare tali bi. Ah, ah non non non mais non je ne justifie rien je te donne un exemple en tant te doo ko wax xam nga lan mooy affaire bi hmm. c'est pas que da jël di sànni di sànni di sànni gis nga boo amee benn affaire il faut pas termine après nga wax sinon du ma la bàyyee dootoo wax dootoo wax bàyyi ma wax mais jëwriñ non laisse-moi sa sa yére bi sax da ko war a simi sol chemise di man non ma ma <laughs> terminer may ma non yow dama bëgg nga dem sol caaya ah? ñu dox la ay maxtuuma ndax nga xaw a noppi tuuti parce que vraiment xam nga bu ma li muy wax nii li muy wax nii non non Moustapha Diop waaw Moustapha Moustapha terminer yow da ngay ba léegi xam nga boobu li def ma la benn kii personnel pourtant tu racontes toute ta vie waxuma la ko. merci. <laughs> jërëjëf mais bien sûr mais man dagguma la xam nga lan mooy tax. Euh, peut discuter dans la contradiction mais avec le respect. man je respecte l'avis de tout un chacun je ne je n'ai pas monopole de la vérité. ou bien jërëjëf monsieur administration politique non non je te dis. Mhm. que ce que tu fais depuis longtemps. yaa ngi koy les gens. non parce que mu ngi sama débat wax ko ma quand même. pour mu leer léegi wax wax si kii bi waaw l'habit porte l'habit ne fait pas le moine. d'accord hmm. waaw solo sa yére bu la neex. non écoute booy booy ba may solo xale nga. dëgg la defal ndànk. defal ndànk booy. d'accord man lu man génn. waaw léegi maa ngi jégalu bul jégalu yére bu la neex yére bi da nga may doo fay nga may ma c'est la première des libertés mën naa la ci may beneen liberté. waaw merci beaucoup jërëjëf mais continué non non booy defal ndànk. yi <laughs> ngay def nii c'est des. waaw léegi continué non du ma sëñ bi université lañ ko fooyee boobu xale nga. dëgg la ndànk amal rek bu ñu koy dina leer. d'accord alors yére bu ma sol bu taxee nga rus ma rus ma ci li ma doon mu jël ci accoutrement. d'accord man rus naa la ci Sénégal la nga da jox sa avis mais bu ànd ak attaque trop du baax parce que bu ñuy toogee tey jii y a des yoo xam ne tu le dis ñuy noté qui sont très pertinentes oui Abdoulaye débat mm-hmm. je dis que la gestion du Covid a été transparente on a vu pour la première fois autant de milliards transité nit ki woote ne du ko laal nañ ko yóbbu au ministère de transité moom bu dëgg mm. parce que parce que dans ce talent là dans ce talent de solidarité nationale mm-hmm. kenn ku nekk cotisé tous les Sénégalais bon temps ku ko mën ci nii wala ci ne dama ne ba la communauté guinéenne la communauté tous les comités ñi dëkk ana xaalis ba bokk nañu xaalis yow ni ministère de l'économie mën naa la poser question non non je termine ndaw rek xam nga xam nga ndaw rek kaay ma wax la boo demee une chose je termine avec toi euh, sur pasteur disons sur pasteur foo dem pasteur boo ne c'est les Français qui le gèrent pasteur bu Sénégal moom directeur national boo xam ne Sénégal moom. waaw teewul tubaab yee ko moom non mais non déggul wax la mais dama ne. am na tubaab yee ko moom. non non non am na loo xamante ne. ah non non da ko mooy ma wax la. Hmm. bu ñu defee convention. Hmm. am ci une partie boo xam ne y a l'état sénégalais qui est impliqué. Mhm. moo leen permettre ñoom ak directeur Séné état Sénégal dafa am action institut Pasteur loolu nga wax de. attends la <laughs> déglu ma déglu ma. Euh, nga ne état du Sénégal dafa am action institut Pasteur. non s' il l' dama lay mottali rek ki nga sénégalais boobu ngay wax. waay mu remplacé ki mu remplacé ab français la moo yor institut Pasteur bu ah, Madagascar. mais voilà ce que je te dis moo tax ma ne la demal institut Pasteur bu neex yaa ngi doog institut Pasteur boo xam ne tu fais un local ku dëkk moo koy gérer il faut savoir le pourquoi mais ce n'est pas que nag maintenant mm. avec le réglementation il y a rien à payer mais c'est tellement allégé parce qu'il y a des choses qui sont prises en charge par l'État du Sénégal pour si loolu pour mu allégé wu pour que li nga xamante ne état amagu ko en termes dispositif ñoom ñu mën ko parce <laughs> ah mais ah, mais mais bu ngeen di wax da di wax. non maa ngi ñëwaat maa ngi suuful kay la mu suuful daf leen daf leen ni sama frère muñ leen tuddi. Lamine ma ma delloo la parole bi waaw mais les enseignements tirés du Covid. les enseignements tirés du di nga ci